waat ci lislaam mooy feddali ab mbir ci tudd ku ñuy màggal màggal bu mu yelloo moom dong melokaan bi dafay amee ci tudd yàlla wax lu mel ni wallahi wala warrahman wala tudd melokaanu yàlla lu mel ni wa izzatillahi wa jalaalihi la yóbbee tax nit di waat mooy feddali kàddoom ba ki muy waxal dali koy dëggal ni moom kat dana defi ab mbir wala dana bàyyi ab mbir wala ba da ci ñaax ki muy waxal wala am lu mu koy tere sit nañu nag bëre waat ngir yàlla tere na ci alquran wax ni bul topp ki nga xamante ne moom dafa bëri lu muy waat ci neen mu waxaat moom yàlla na sàmm seeni waat daganul nag waat lu dul ci yàlla yont yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne yàlla kat tere na leen ngeen di waat ci seeni ay pap képp kuy waat ci yéen na waat ci yàlla bu ko mënul kat mu daal di noppi lii di waat dafa am ay xaaj yu bare bokk na ci mooy feddali sa kàddu ci mbir moo xamante ne moom weesu na loolu bu nekkee dëppoo nag dëgg waat boobu waat bu dëggu la bu nekkee nag dëppoowul ak dëgg kii waat dafa bëgg rek neenal àq bi nga xamante ne keneen am na ko loolu ñu tuddee alyaminul xamuus kooku dugal na boppam ci bàkkaar waaye loolu mu jël ci àqu keneen da ko war a delloo waat bokk na ci waat bi nga xamante ne nit ki dafay feddali li mu bëgg def ci jamono biy ñëwi benn dafa bëgg def jamono biy ñëwi walla bokk dafa bëgg am lu mu bàyyi ci jamono biy ñëwi mel ni waa ji mu ne wallahi du ma dem seeti diw wala mu ne wallahi kat duma dëggu këru diw waat bu mel nii moom lañ juddee waat bu ñu fas wala waat bu fasu fileek chartam mat na waat nag bi nga xamante ne moom fasuwut mooy waat bi nga xamante ne làmmiñ la koy wax te xol bi amu ci benn jubluwaay mel ni waa ji mu ne déedéet wallahi aha kay wallahi waat bi moom fasuwul képp ku waat nag topp mu daal gis ni am na lu gën a baax lii tax mu waat kooku dafa war a def li nga xamante ne moom mooy dindi bàkkaar boobu mu def ci waat le waaye bàkkaar bi ñuy dindi lu amee lu dul ci waat bi nga xamante ne moom borom da cee dëggu yàlla wax na ci alxuraan mu ne yàlla kat du leen jàppee waat bi ngeen def seeni làmmiñ te du leen ci ak benn jubluwaay ak benn yéene waaye nag da leen jàppee li nga xamante ne seen xol yi jàpp na ko lay dindi bàkkaar boobu mooy nga jox fukki miskin ñu daal di lekk ci lekk bu gën a doomu ci yéen bi nga jox seeni waa kër wala nga solal leen yére wala bokk nga daal di goreel jaam gannaaw loolu yàlla mu ne na ngeen ku munut loolu na nga woor fan na ngeen sàmm tamit seeni waat aay bi dafa ñëw di leeral ni bàkkaar biy dindi bàkkaar buy dindi la nekk ci waat bi nga xam nit ki def na ko mu daal di dogu ci moom loolu lu war la te nu mu koy dindee mooy mu leele fukki miskin wala mu solal leen yére wala boog mu goreel jaam bu munul nag benn si ñetti dafay daal di woor ñetti fan waat nag ba nit waat ba pare wax incha allah loolu dara du ko ci fekk mel ni waa ji mu ne duma def lii wallahi bu soobee yàlla kooku benn bàkkaar du ko tegu ngir yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa mu ne képp ku waat ci ab mbir topp mu wax incha allah kooku de dara du tegu ci kawam